Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf dictionnaire Robert di téere bi ñuy wëree ay baati tubaab moom la l'observateur xëy ubbi ñuqi ca baat sa bu ñu naan médiation mu di baatub juróom-ñeenti araf bu mu teg ci diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko Populi yéenekaay bi mi ngi ñoo ngi dégg ñu bari ci réew mi ñu yëkkati seen di wax waxi médiation ngir réew mi jóge ci ñaaxo ñaaxo yu mu nekk journal bi taataan ci xalaatub Alioune Tine bu Afrikajom Center bu docteur Alassane Daw dib sociologue ak xalaatu Babacar Dione di kuy gëstu ak xeltu ci politique gu réew mi ñoom ñett ñépp li ñu xalaat ci médiation bi ñuy wax ci diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo ngi koy wax ci page 3 bu l'Observateur journal Tribune xëy di ñu jox ñaari yoon yi Maître du Ndoye jàpp na ci la Macky Sall war a jaar su bëggee régler ka Ousmane Sonko ci jàmm benn bi moo mu wootelu ci Assemblée nationale ab loi buy dindi ci code pénal bi délit corruption à la jeunesse bi ñu gàll ci ndoddal Ousmane Sonko ñaareel ba di moom président Macky Sall mu jël décision gracier Ousmane Sonko coow li jeex anki dina kay mel ne ku naan ñu kon de coow li jeexagul ndax parquet bi Ousmane Sonko lay piste li muy seet mooy nu mu mën a def ba fitna ak jalte yi ak manifestation yi amoon ci réew mi premier juin deux juin ak trois juin ñu gàll ko ci ndoddal Ousmane Sonko force de défense et de sécurité yi ci réew mi ci instruction a gàll ci ndoddal Ousmane Sonko yeneeni charge daan yi procès bu Sweet Beauté ba tëj ko ci ñaari ati kaso bi nee nañu bésub démb bi moo ne woon délai bu mujj ci Ousmane Sonko ngir mu dem jébbal boppam yoon constitué wu bu bëggee def appel waaye njiital parti Pastef li defu ko li mu def moom ak waa Pastef Vox Populi nee nañu moo di ab communiqué ngir tontu communiqué bi procureur bi defoon doon ci wax li tukki ci manifestation yi amoon ci réew mi ci fukki ponk Vox Populi nee nañu ci la yi tëddeewul njaaxaanaay ñu dolli ci ne waxi article bu code pénal bi parquet bi di tudd ci ay waxam te article boobee di wax ci waxi crime de génocide loolee bu ñu ko yëkkatee mën naa réew mi waa këram yi ñuy alda alde ak di leen ñettamal jàpp moom Ousmane Sonko journal Libération ci la xëy ba di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne ginnaaw Cheikh Diouf bu Pastef ginnaaw ray waa sûreté urbaine tegguñu seen yi ñu naan ko ñoo ngi ko jàppee ca ginnaaw ray ak Pape Thiam ñoo nga ñu garde à ndax tuumay jëfi terroriste yu ñu leen di tuumal Wuli Njaay bu parti Pastef mboyaan mi waa sûreté urbaine jàppoon yéenekaay bi nee nañu takkal nañu ko bracelet électronique Al Ousseynou Ba di maître assistant Serigne Fallou Amar ak Cheikhno Bari di ay étudiant ñoom ñëpp libération mi ngi ñuy xamal ne tribunal bu Pikine Guédiawaye teg nañu leen tuumay bëgg na saxal kaaraange réew mi ak yore ay produits yu mën a taal ba tax na mandat dépp nañu leen ba ñoo nga ci kaso ba kaso yi réew mi l'observateur ne nañu bu ñu moytul yu bari yi ñu nemmeeku ci réew mi fan yi droit de nations unies jaaba jonge ji fa Macky Sall jooytu fa ñaawlu fa li ñu jàpp ne moom la Macky Sall nekkee ci réew mi te du yoon moom Macky Sall Walf Quotidien mi ngi ñuy xamal ne guddi yu ñu toll wuute wuute ku nekk ci càll ndax waa organisation des nations unies di ONU teg nañu ko pression bay sàkk ñu def ay enquête ci fukki doomi aadama ak juróom-benn yi faatu ci réew mi ci manifestation manifestation yi fi amoon boole ceekit manifestation yooyu moom la presse étrangère bi di waxtaane guddeeg bëccëg Ibrahima Bakhoum di journaliste formateur di ñu wax ci source wa li indi ba yéene kaay nekk bitim réew di média occidentaux yi siñ fang suñu réew di Sénégal ci jamono joo xam ne ñi ngi naan ay weer a des ci suñu digganteeg élection présidentielle yi war a am ci réew mi njiit réew mi di Macky Sall moom ak yeneen ñeenti njiit réew Afrique sol nañu seenu dàll wutali bu Sénégal président bu Afrique du Sud président bu Congo président bu Comore président bu Égypte président bu Ouganda ak président bu Zambie seeni tànk mooy lijjanti fantasiro gi am ci diggante Poutine bu Russie ak Zelensky bu Ukraine heure bu ñibbisee moom président Macky nañu ko yeggee li ñu suur suwaane moo xew ci lycée Tassinère ga ca Ndiobène Gandiol ga ca Ndar ubbil yéenekaay bi ay élèves yu doon defante yi saay-saay ñoo ëmbalante ci